انضم ضمنا بل قاد شكلا ما هي تلك الآية الكريمة التي يقول فيها سبحانه وتعالى بل يذكر ويستحسن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فهم مريدون وطوبى للمريدين وأكرمنا ببشيرنا جاء مبشرا وقادرا على التبشير حتى تكون أيامنا كلها بشرا وفضلت أن أحشر مع الزوايا الموريتانية التي هي أصلي البوتلميتيون يعرفون anna maqaabirahum tusamma bi saalihin ibraham wa ibraham hada ibnuhu huwa walidu walidati walahu walahu wa axwaaluhu hum ahlu cheikh sidiya wa acmaamuhu hum qawmu baddi alladi kaana rafiqan li cheikh alxadim fi xidmati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam al alaaqa allati tarbituna bi tuuba naadira wa tushtaraa bi bilbashar li galaa'i thamaniha kaana huwa yashtari tilka alkutub annaadira wa yahdiha ila man yastaxiqu dalik fa ahda kitaab aljalalayn almaaruf ila jaddi alxaaj abdullahi ñas walidu alcheikh ibrahim radiallahu taala anhuma fa amara daal fa amara walidi fa amara walidi bi an yursila ilayhi risalata shukrin shi'ran wa aqra'u minha baytayn qaala aska aska sala aska salaamin ka taami shuhdi birraahi yanuubu anna wisaal arraahi birraahi muattaran bi nawaahi sheykhi فوا أزكى سلام كرى المسك نفحته معطرا بنواحي الشيخ فواحي حتى قال هو الجلال هو الجلالان تسير لمنصبكم مصباح علم كضوء الصبح اللماح أي أنه قارن بين المثل القرآنية allati ijtamaat fi rajulin kaana ixtisaaran li kitaabillahi taala wa huwa cheikh ahmadou bamba wal yowm jitu bi hadiyatin naadiratin xaytu anni kuntu fi tahran mundu aamayn ka wasirin yanuubu an yanuubu an dawlati sénégal wa kaanat hunalika ahadisun an ashaabi turuqi fa ida bi shaxsin yatataraqu ila lcheikhi ahmadu bamba bima laa yaliqu fa kaana lii an atakallama bi xuduuri ali baxshi alladi kaana fi dalika alwaqt fi idaarati almarasim qabla an yakuna safiran fi sénégal fa dakartu lahu ann cheikh ahmadu bamba huwa min alsulalati nabawiyati sharifa wa axrajtuhu lahu dalika fi hada alkitab li taarafu kitabu al ansab yadkuru huna fi hadi safha habiballah ahmad ibnu habibillah jaddu xaadimi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam wa yashracu hada alkitab qarabatahu fi fi tilka silsila bi jaddi alxaaji abdullahi ñas wa ba jiddina alxaaji malik wa bi aailatil bakkaay abun aama almaarufa sëriñ bi nga jéggal ma may nuyoo te ñaan yàlla mu yéegal nuyoo bi bam tolloo ki nga xam ne nuyoo ak teral ak tatagal ci moom ndax maqaamam mu koy muy sëriñ Tuubaa mi moom bés bi waaye yal na ko ci yàlla yéegal te moom mu nangu nuyoo bi ko nangoo ñun ñëpp yal na ci suñu aajo faju zahiran wa baatinan moom moomu nga xam ni yàlla nga koy tudd ci alquran ma ngi koy junj boog ndax fi ne loo wax ñu konta ko waaye kenn mënta wax ne yàlla waxut ne alladina ñooñu nga xam ne yad'uuna rabbahum ñi ngi tudd seeni borom fil xadaati wal ashi ni ngeen koy su subaa ngoon yuriduuna mooy muriduuna yéen ñu jàng arab wax leen ndax am na wala amul yuriduuna fahum lan lañ muriduuna murid murid yi kon tur wi ci alxuraan moo mag ci jamono muy agsi bay wàcc si fii ñu di ko wax kon nag loolu bëgg yàlla bëggaale ko la bëgg yonent bi bëggaale ko la du bëgg lu neex kenn du xaritoo ak kenn kenn mënta fexe ba yàlla deful saw tur ci alxuraan wala say mbir nit def ko ca alxuraan moo ñu mag ñun ñëpp am na junnee at ak juróomi téeméer te tudd na baat ak murit te kenn waxut murit ba sëñ Tuubaa ñëw di def murit wax naa sama baay ci jamono jooju nga xam ne téere dafa jafe ba dañ daan jël aw nit am ñu daan ko tuddee moomeef di ko wecci ko ay téere téere jafe lool Sëriñ Tuubaa di jënd téere di ko jox ña ko yellool mu yónnee sama maam Alaaji Abdoulaye Niass te moo taaloo sama baay xalifa ak ci doomam bi ki ci gën a siiw muy Baay Niass Alaaji Ibrahima Niass mu yónnee ko téere Jalaalayni kooku ne sama baay bi ma jur ne ko bindal nga santal ma sëriñ tubaa la mu ko wax gàtt gàtt ba ko ne daf ko ne yónnee nga ma firi alquran waaye téere bii nga ma yónni firiwul kenn sa jëmm yi sëriñ tubaa yow rek lay firi yow rek yaay alquran yaay jëmmi alquran juy dox loolu nag kenn mënu koo weesu ma wax ne maa ngi bég bi ñu yàlla mayee bés bii ñu toog ko nga xam ne bésam mbég la léppam mbég la muy sëñ Basiru Basiru mbég la firi yàlla nañu yàlla bégal ci Bachir di koo xam ne it ku mën a bégle la ndax ba muy doomee Abdul Xaadir te ab Xaadir mooy ki man li muy def ci kàttanal yàlla kon ku koo xam ne lépp a mbég la te tey jii mu nekk koo xam ne mi ngi dëkk di bégle wallahi maa ngi koy fekk fu ne fu ma tourné fekk ñoo xam ne Serigne Bachir mii mi ngi leen di bëggal ci fañ ne ci seen kër ya ci seen lot wala ci seen soxla wala ci seen jaaxle lenn lu ci nekk mën nañu wax ne sëñ Abdou Khadir mi ngi nii di dox ci jëmm jii mi ngi nii di dox ci jëmm ji nga xam ne jëmm na jëmm sëñ Tuubaa te mënumaa toog di wax te fàttalikuwuma jëmmi ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Gaynde Fatma mi nga xam ne boo ko tuddee yaram yëpp daw ndax mboolem tariqa yi la defal teraanga doomi ndeyoo leen moo nekkoon buy ñë di toog di paasal ay tijaan ñuy ñëw Casablanca mu luwe ay kaar jënd ay satala yëkkati at yooyu jox leen ànd ak ñoom gungi leen bañ dellu si ku mel ni Gaynde Fatma amul bu ma gisee doomam mu toog te wallaahi ku ko fortaloon fi mu ne wartul defaat maa ngi ni kenn du ko wér sama yaram nag daw ci sëñ Abdoulaye ndax dama ne bu sëñ sëñ Gaynde ma toogee dootuma mën a wax surtout mu toog fi mu toog waaye nag loolu yëpp ay ngëneel yu dajaloo la may ñëw nag di wax ne ba ma demee Taxeraan ñu wax wax jooju am koo xam ne daf doon wax ci sëriñ bi loo xam ne waru ko moom ko doon wax wax ja waru ko daal laa mën a wax fekk Ali Bakhshi mii nekkoon ambassadeur boobu mu nekkoon directeur du protocole mu jël si ma en tant que ministre bu ñëwal état Sénégal ba waxee wax jooja ma ne ko sëriñ boobu ñuy wax mu ne ah ma ne ko ci yonent bi sallallahu alayhi la wàccee deretam la sidditam la yaramam la yaxam la mi ngi nii parce que réew mi lay loo ñu weddi ko dañu ne dafa bëgg lu neex murid yi rek waaye mbind maa ngi Habibullah mi Serigne Touba bind ne Ibnu Habibillah mi ngi nii moo fi ñëwoon jihaat si depuis 1899 nekk fii ci Mauritanie ñuulaay bi ndey yi ñoo ko indi waaye yaaram piir ngi nii mbooleem mbooleem càllalaam ba mu yëg si ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndey ak baay maa maam jarbaat lépp a ngi fii ma indi ko muy sama addiya ma jox ko sëriñ bi mu jotool ko sëriñ Cheikh mi nga xam ne tey moo fi sëriñ Touba di ko ndugal ndokkeel ci bés bi téere bi mi ngi tudd téere càllale yi càllale yi noonu la tudd ma di ko jox sëriñ bi xam naa ne bu ma ko joxee sëriñ Cheikh jot na ci fi nga xam ne nag alhamdulilah rabbi fi laay tëjee mooy man Touba manuma leen a gërëm mukk parce que ñoom ñii jël nañ seen doom jox ma ko muy soxna Bintu di doomi sëñ Mouhamadan moom sëñ Maodo Moustapha mi nga xam ne moo sëñ ci dëkk bii di maami sëñ bii toog di seen ma di seen bàyyi ñoom ñii kon nag ki yëkkati doom jox la yëkkati suuf ci biir kër sëñ Modou Moustapha jox ma ma tabax fa kër nekk fa ak soxna si ba muy ji boromam barabu fa mu nekk mook baayam ma defaroon ko nit nag mënta jox lu loolu jox la suufam ak deretam kon jërëjëfee Touba tey ëllëg ak naaw ëllëg loolu ñu ñu joxit ñun googu kóllëre du far bu mukk bi ma ñëwee tey di dugg ci dëkk bi teggewoon circulation bi kër Cheikh Béthio laa romb mu génn jël nag wu rëy teg ci camion bu rëy ne ma sa añango ma dem ba ci yoon wi ma dajeeg Cheikh Amar mu jóg ñëw ne ma dama bëgg ma yóbbu la nga dal sama kër ma ne ko déet loolu ñemewu ko ndax Cheikh Bass loolu xanaa moom mu sant ma ko waaye nag danaa ko jottali ne ko yaa ngi buggoon a dalal ganam kon nag maa ngi gërëm tey ak ëllëg ak gannaaw ëllëg li may tëjee nag mooy màggal gi des na màggal gi ci sama gisin des na parce que sëriñ bi bu muy génn di dem géej danaa koy wax waxaat ko baax na ay ràkka ak julleeg woor taxuloon rek waaye dëkk ba nga xam ne moo doon dëkku Medina yi yonent bi taxawaloon fa état islamique état boo xam ne jotul a sotti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi te sëriñ waa dafa ñëw pour yegg li liggéey yonent sallallahu alayhi wa feek taxawalu gu ñu ci Sénégal état boo xam ne waxi sëñ Tuubaa lañ koy doxalee dara du sotti wasalaam boobu état nag murid yee ko moom tijaar yee ko moom xaadir yee ko moom catholique ko moom boddul kenn man de ànd naa ci لأنهم يعتبر صحية اليوم بسبب السبب فكلمة عالية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضيلة الشيخ سيد المختار الخليفة العام للطريقة المريدية السادة المشايخ أصحاب المعالي أصحاب السعادة السادة أعضاء السلك الدبلوماسي أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إننا جميع وجود القادمة من موريتانيا إذ التزموا بحضور الحمد السنوي لإكرام قدوم الشيخ أحمد بن بن المنفى ونشكركم على حسن الإجابة وحضارة الاستقبال ونثمن جهودكم الرامية إلى إحياء التطور السني بالعلم والعبادة والإنفاق في سبيل الله والدعوة إليه وبذل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقلوب ولاقوا في ذلك فكذلك كان سلفكم الصالح الشيخ احمد بن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الشاعر بنبي اقتدى عذاب الكرم ومن شابه منهم اباه فما ظلم وقد قال للمعشر سنة لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها فقد كان الشيخ الخليل رحمه الله تعالى إماما مصلحا وشيخا مربيا أحيا الله به السنة وكشف به الأمة وأصلح به شؤون الأمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبارك في خلفه وجعله خير خلفه بخير سلف آمين وثم هذه المداخلة ومؤاخاة الطرق الصوفية على ضوء ما ذكره الشيخ بالعيني في كتابه مفيد الراوي فكما تعلمون أن جميع الطرق الصوفية تتصل في سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم وتسعى إلى غاية واحدة وهي البناء في مشاهدة الله ومن يدعي غير ذلك من أهل التصوف فهو مفتر عاص لأن الولاية لا تكون إلا بالطاعة والطاعة لا تكون إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ولأن الولي من والى الطاعات لم يخللها بمعصية ولذلك قال شيخنا شيخنا مستهلا منظومته الرائعة إنني مؤاخ لجميع طرقي إخوة الإيمان عن المتقي ولا فرق للأولياء كمن يفرق للأنبياء قال تعالى المؤمنون إخوة وعدم التفريق فيه أسوة قال في شرح ومعنى الآية أن المؤمنون منتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية كما أن الأخوة من النسب ينتسبون إلى عصر واحد وهو الأب الموجب للحياة الفانية فالآية من قبيل التشبيه البليغ وحاصل معنى الأبيات أن الأولياء كلهم يقولون لأتباعهم عليكم باتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله إذ إذا فطريقة واحدة في المبدأ والمنتهى فكما قال الشيخ الخديم نفعنا الله ببركته فكل ورد يريد المريد لحضرة الله ولن يحيدا سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى إلى أحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم على الصواب وكلهم يدعو المريدين إلى طاعة رب العرش حيثما جلا فالاستقامة فلا تحقر أحد منهم ولا تنكر عليهم أبدا وحاصل وحاصل كلامه أن الشريعة المطهرة جاءت من حيث شهود الأمر والنهي في كل مسألة ذات خلاف على مرتبتين تخفيف وتشديد ولكل من مرتبتين رجال فمن قوي فمن قوى منهم من حيث إيمانه وجسمه خطب بالعزيمة والتشديد ومن ضعف وجسمه أو إيمانه خطب بالرخصة والتخفيف وأيضا وفي الأخير لأنني اختصرت كثيرا هذه الكلمة الرائعة الطيبة لو كان الوقت يسمح لذلك لقرأتها بجميعها ولكنني أنتهز هذه الفرصة أخيرا لأجدد الشكر إلى كل القائمين على هذه هذا الركن الكبير من من المريدين ونحن في موريتانيا نفتخر دائما بعلاقة طوبى بموريتانيا وعلاقتي الشيخ أحمد بامبا الشيخ الخديم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشناقطة فهي فخر لهم وجميعهم معترفون بها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kon incha allah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa taabiina wa man tabiahum wahtada bi hadihim waxtafa athar ila yawmi din al muridiya wa taxta riayat al jami al lijaan al fi eh, lajna al munadima li màggal nuxayikum wa nashkurukum ala xusni istijabatikum li haasihi daawa allati تقوي وتفعل وتوثق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين السنغال وموريتانيا عامة وبين الطريقة المريدية وسناقطة لأن الشيخ أحمد بامبا يعني حضر موريتانيا ونفي إليه ولكن يمكن أن يعني نقتبس من البيت الذي يعني يقول فيه راموا مسيري إلى جرب لدى لسز لو عاينوا سر ما ما في السير ما راموا ولكن كذلك لو عاينوا سر ما في نفي شيخ أحمد بن إلى موريتانيا لتصفيته يعني عقليا ورمزيا يعني ودينيا يعني لأن بعد محاولة تصفيته جسديا في غابون حينما فشلوا لقد أرسلوه إلى موريتانيا لتصفيته نهائيا ولكن يعني راموا مسيره إلى موريتانيا ولكن لو عاينوا سر ما في السير إلى موريتانيا لا يعني ما راموا يشكركم شيخ محمد البشير في الحقيقة يعني يقول بأنه يعرف بأنكم يعني بأنه طريقة المريدية والشيخ أحمد بامبا وخاصة الشيخ البشير يعني دخل دخل في قلوبكم ولكن هو يقول لا أنتم يعني لم لم تدخلوا فقط في قلبه ولكن يعني سكنتم في قلبه أنتم ساكنين يعني قلبه محل إقامتكم من أجل ذلك يعني يشكركم جميعا ويعني الكلمة تعجز عن تعبير يعني ما yukinnuhu lakum min alshukr wa taqdir wa yaqul lakum eh, insha allah sawfa yani nas'a eh, maan yani yani yani fi hada darb hada darb yani allati eh, allati yani yuqawi alaqatna wa wa wa wa wa yakun yani ka yani hada jisr yani alladi yarbit بين السنغال وموريتانيا ان شاء الله كل سنه سوف يعني نبني يعني له دعم اكثر ويقول لكم مرحبا في داركم لان لا يكرم المرء في اهل انتم في مدينتكم وفي داركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Cheikh Mamadou Bassir nee na mi ngi leen di sant. Euh, di leen gërëm ci turu Cheikh Sidil Muxtaar di ci def loo xam ni teraanga yu baax a baax ndax sëriñ bi lu mu daan def doomam yi ak xalifa yi nag yëpp ñu ngi ko man dama déggul bu baax a baax waaye nag euh, ya ya ya yasudduunahu bi quwwatin euh, ndax sëriñ bi loo loolu moo ko neex te loolu moo neex njabootam bi yëpp nag fii maa ngi di leen bu baax a baax di gërëm léegi asalullah tabaraka wa taala bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam وبخديمه هذا أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يصلح أحوالنا وأمورنا وأمور المسلمين جميعا وأن يجعل هذا البلدين موريتانيا والسنغال في غاية الرفاهية والوفاق والاتصال والالتئام والالتحام والأخوة بينهما مع الرخاء الدائم لنا وأن يجعل المريدين في في في في خدمتهم هذه مستمرين بها لانها تربط الشعبين البلدين العظيمين اللي هم موريتانيا والسنغال ونسال الله تبارك وتعالى ولهم العافيه والاستقامه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووصي المسلمين جميعا بتقوى الله العظيم والتزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لان الشيخ كانت سيرته التزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول من أراد مسكنا لا يخرج منه إلا إلى الجنة فليسكن في دار الأوامر فإنها مسكني وخط خطا دائرا وجعل نقطة في داخله كانت خدمته ومهمته هو نفع المؤمنين وإنقاذهم من النار والاشتغال بمصالحهم ونرجو الله تبارك وتعالى أن نستمر جميعا على هذا الدرب العظيم وأسأل الله لي ولكم العافية وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم وأشكر الخليفة على حفاوة الاستقبال والذي قدم للضيوف من من من من من, من, من كرم الضيافة وخدمتهم والاعتناء بهم وتقديرهم واحترامهم وهذا هم أيضا يقدرونه له ويسألون له التعمير الدائم وصلاح الحال كما يسألونه لابنه الناطق الرسمي شيخ البشير وكذلك سائر الأسرة جميعا كشيخنا هذا وسائر من جماعتي جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى بسم الله